sama élément yi dem ay deux heures du matin trois heures du matin jàpp trois heures du matin ñu dem tribinal pour xooli Sonko ci lu mu nekk ñi ñëw fekk gars yi barricade tëj tribunal fay lamp yëpp black out démb Sonko bu ci guddi gi black out lañ ko lañ ko def pour une première fois dans l'histoire tribinal boo demoon lamp yi day tàkk day leer lépp lañ fay black out total gars yi bi ñu ma woowee bi démb ci guddi ay deux heures trois heures du matin deux heures quel jàpp trois heures du matin vidéo non dama ne c'est pas possible bunt bi kese ngay gis ni miir bi ni xool mi ngi lëndëm crise man leen mais yéen li tribunal ngeen nekk ni ñu ne ma booy tribunal la ngeen di fay nañ lépp lépp lépp muy mel ni armel comme armel te Sonko ci biir BAG ci giri bi amul lal amul matelas amul sax dara ñu ngi ko teg ci karo comme nu ma toogee nii la Sonko toogee ci karo karo bi dëkk bi tàng jër ñu teg ko ci karo démb nalawul barke alxuraan billaahi Sonko tëjul bët démb ci karo lañ ko teg mu wéeru ci giri ñu fay lamp yàpp ba mu ñuul kukk la kiris ñu koy jéem a subir looloo xam ni mentalement psychologiquement dañ ko bugg atteindre muy lu ñaaw lañ def Sonko dem ci guddi lu doy waay fay lampe yëpp fay lumière yëpp black out total mu nekk ci giri tàngoor foofu xasaw xunnu yooyu fees fa tell billaahi ci kuñ tooñ doomu jàmm séparé kook ay soxnaam séparé kook njabootam daj buntu këram tëb ay miiru këram takk caméra ya la azim dem def ko loolu ci biir ci yóbbu ko ci ay gri non loolu metti na trop kuñ ko fi defoon sa baay billaahi wallahi di nga jooy loolu metti na trop kuñ fi fekkoon sa baay tooñ ko di ko enregistré fekk ko biir këram dajji buntu këram tëb niir ya génn ay fetal tiimale ko njabootam jàpp waa ji jàpp sa baay yanu ko dugal ko ci oto yóbbu ko dugal ko ci giri ñu waxati nga fay lamp ya mu tàng jër courant zéro ñu dugal ko foo xam ne mi ngi lëndëm crise nekk ñu tëj ko fa yooyu di ko fa ray amul mat laa tëddul nalawul di xoole toute une nuit non ku ko fi defoon sa baay sa waay nga xam ni lépp dëgg la di nga am la métti de moo tax man démb nalawuma ko man kaay bi ñu ma wooyee wanee tribunal bi ba suñ jonn yaa xool leen sama yi ba suñ jonn yàlla tey gëmmuma ba suñ jonn yàlla tey gëmmuma toute la nuit maa ngi naan naa maa ngi saaga démb lu ma metti lu ma naqari neexuma démb sama xol baa ngi tàkk may yëy sama xol bi naan tam bu ma yoroon bomb ba toj sa coow lu ne xalaat naa ko démb lu ne non billaay booy bu mu lu ne sama xol bi di def noo xam ne ah non munuma imaginer ni ay doomu aadama mun nañ jéem a toroxalee nii doomu aadama munuma imaginer ay xaj ñi mun nañ def nii doomu aadama démb laa comprendre an buñ gars yi jàppal bu Macky Sall ak ay nitam jàppal Ousmane Sonko démb laa koy doog comprendre démb laa doog comprendre réellement que ñii bu ñu amoon paaka dañ koy daggate saam ko tong-tong ko démb laa ko comprendre démb laa xam ni ñii nag ñooy vrai dëmm lekk katu nit dëgg dëgg dëgg ay nitu Macky Sall ñii la démb laa ko gis parce que dañu doon jéem a wax loo démb Ousmane Sonko Ousmane Sonko ba léegi ubbiwul gémmiñam ba léegi ubbiwul gémmiñam bu mu duggee foofu ba léegi salaamaaleykum sax waxu koog ñoom Baara Sangare moo jàkkaarlook moom di ko poser question ba léegi bu ko Ousmane tontu Sonko tontoo rek Michael Jackson moo ko tontu wala James Brown wala Bob Marley ba suñu jonn yàlla tey Ousmane Sonko pipewul mu Baara Sangaré toog fa waxu ko waxu téléphone techno de ko ay ñu deewoon deux mille vingt et un ñu nangam nan nga wax ci loolu ñu li appel à l'insurrection ku deeg nangam dang Ousmane Sonko bu ko tontoo laa wax Michael Jackson ko tontu ba suñu jonn yàlla tey Ousmane Sonko tontuwul Baara Sangaré pépéwul moo ubbiwul gémmiñam ma nga toog rek di jàpp ci boppam ne allah àll yàlla dina ko fi jële génne ko fi wala askanu yi dañ ko fi génne incha allah mi ngi toog rek jël yaakaaram yëpp lu ko ci suñu borom subhaanahu wa taala nit ñi lu ñuy jaay doole jaay doole jaay doole askanu yee leen mën lu ñuy jaay doole jaay doole jaay doole suñu borom subhaanahu wa taala leen mën ba suñu jonn yàllay tooy tontuwul Baara Sangaré ñu posé mu posé mille question waa ji ku ngay posé question tontuwu la faalewu la ñu ñëw jàpp ko def lu ñaaw loolu ñu def donc démb li ñu tàmbale am na solo waruñu ko bàyyi. waruñu ko bàyyi de wallaahi buñ ko bàyyee billaahi buñ ko bàyyee waxoon naa leen ne leen sonko gars yi bugg ñoo wuñ ko bàyyi ci biti loolu yàgg naa leen ko wax nee naa leen ñoom nee nañ du ñu bàyyi sonko ay élection di am mu nekk ci mbedd yi ba di influencer ab candidat wala di ànd ak ab candidat wala di soutenir ab candidat dañoo décider tëj ko ci kaso bi ils feront tout leur possibilité pour tëj ko ci kaso bi loolu lañ décidé te gis ngeen ko fi démb ils l'ont ñu ngi koy jéem a def ña ngay def lépp lu ñu mën pour dugal ko ci kaso bi te bu sénégalais yi xeexut ci kaso bi lay mujj de te bu sénégalais yi xeexut te bu sénégalais yi xeexut du gaaw a génn de parce que ñoom defuñu ay vol rek de déjà Sonko Sonko dina sàcc ay téléphone ay techno Sonko bu soxloon dix milliards de am ko tey Sonko dina sàcc ci téléphone techno quoi <laughs> ci koo xam ni dafa tam xarit le lendemain da nga woor moom ñoom bu ñuy jàpp soo ko dafa woor dem julli ji jumaa kilifa bu sangu ba set woor dem julli ji àjjuma génn ñëw di sàcc techno xam ngeen loolu yanul maanaa xam ngeen loolu dafa wax yaradiku la ak père de famille bu gëm yàlla wàkkirlu suñu borom ragal yàlla jóg dem julli ji woor le même jour ngeen ñëw taxaw buntu këram di ko enregistré mu wax ak yéen ci njëkk ak teraange ngeen ci ay ko reewande mu jël téléphone bi ndànk ne la ubbil sa kot nga attaqué këram attaqué ko génn ko ci njabootam tasaare ko ñuy waxati. nga ne yoo dafa sàcc téléphone donc ñuy wax sénégalais yi encore une fois ñu jóg génn pour libérer Ousmane Sonko ñoom rek ñoo ko mun ñoom rek ñoo mun réclamer justice ci lii ñu bëgg a teg Ousmane Sonko